yow looy wax ba doo ma fay sama xaalis tey laa gisut am dam yow da nga neex ba pare ne doo ma fay sama xaalis fii amul artiste amul dama ne la sama xaalis da nga ma koy fay fay yow tey laa lay yàq ma capable xam nga xam nga xamoo li ma capable tey ngay xam